ngir rek gën a mën a yamale seen gis ci ci projet bi nga xamante ne nii moom la président de la république Bassirou Diomaye Faye nar a doxale Sénégal tax na ministère bi yar microfinance nag ak économie sociale ak solidaire daal di benn atelier de partage ca diwaanu Somone. dafa nekk loo xam ne tey tu euh, ñu ko defee dina tax euh, képp ku nekk ci ministère bi li euh, nga xam yow ci fi nga féete lan nga war a def ci sa wàllu planification ba pare ñu booloo yit bu kenn ku nekk xamee lan la war a planifier lan lay sàkku. ñu mën a am nag li ñuy wax dispositif de suivi évaluation boo xam ne dafay méngoog ñun li ñuy def ci projet bi ndax nattukaay yi dafa am solo te nattukaay yooyu munoo ko am fekk defuloo defuloo document de planification wala de document boo xam ne day nekk référence Euh, pour ngeen xam fi ngeen mën a jëm donc loolu moo sabab atelier bi. ñu woon président bi lépp atelier ministre Aliou Dione daan na ci pëtaxlu ngir ak leeralaat point stratégique projet mais aussi tontu ci ñi nga xam te ni ñooy critiquer projet bi lee. gën lépp loo jël rek dañ koy importer ñun ñu ne nag dañuy indi modèle boo xam ne dañuy def substitution aux importations loolu ku amul gis-gis vision mënoo ko am. nag li ñu xamul mooy ab document de projet. da jox orientation yi léegi la mise en œuvre nag même li nga ciy décliner ci ay horizon temporel ak ay cible c' est approximatif boo demee ba fii ñu toll nag ñun foofu la ñuy mën a décliner de manière exacte les données donc ñooñu tentu woon ñu def lu mel noonu kon xamuñu planification parce que tey bu ko ko defoon sax dañ naan yow da ngaa cuune ndax yow demagoo ci existant réel bi nga bëgg a def ciblage bu précis mënul nekk dafa mel ni ci budgétisation budget plus ngay dem ci tâche yi ngay doog a am l' exactitude du budget kon bu ñu xamoon planification du ñu wax loolu atelier bi nga xam ne nag ñoo ngi ko amal ci diwaanu Somone ci diir ñaari fan cës la rek mooy fexe waxtaane projet bi ngir rek am gis-gis koo xam te dina gën a yaatu ci bile projet ngir soppi Sénégal comme ni ko président de la République bëggee